ci élection yi. Euh, dina bari lu mu yàq sax ci diine ji. te loolu sëñ Tuubaa man lu ma gën bëggut loolu. waaw moo tax mu jox leen teraanga ñoom ñaar ñëpp jox Idrissa loo xam ne xam na ne. lii ñëw ci kanam mënu na ni mën na caa jot bu neexee yàlla. waaw Macky it mu delloo ko réew mi ndax Macky xëy na xam nga. Euh, dañ ne euh, booy sàcc. sàcc. lim jël. mënoon na ko bañ a sàcc moo ko moom. xam nga dégg. dama joxe exemple rek. na ko rafetal du tey da ciy jot. dëgg la xam nga dégg. waaw na ko rafetal. mais nag man jàpp ma ne Macky la. parce que euh, xam nga Macky Idrissa yëpp dëgg la seen kër lañ toog. dama dégg. muy mhm. militants yi ñooy dem di woote ji. Mhm. waaye nag am na ñu yor élection yi. Mhm. gis nga problème Sénégal gépp. du kenn ku dul Abdoulaye Daouda Diallo. Abdoulaye Daouda Diallo moo fi indi ay quarante yoo xam ne amul ci élection député yi nag laay commencé. dégg nga. ba muy dee carte d'identité yooyu carte d'identité yi loolu dafa naa ñëpp xam nañ ko ñu bëri jot ñu seen carte d'identité ah. ñun yàlla dogal na mooy dem màkk damaa ñëw. ne waa ji mu ne ma ne ko man de dama am problème parce que sama carte ko bëgg a jot. mu ne ah ma ne ko non mu ne ko man dama am problème bëgg a fi nekk nii dama taxaw. mu ne ah dem ma ne ko waaw mu léegi. bu nga xam ne ñaata fan mu nga dem école vingt. dafa demee rek fekk sa carte d'identité ba ma demee sama carte d'identité ci kaw lañ ko damay ñëw di laaj rek booy génneel ma ko ci kaw jox ma bon. loolu dama ci gis ne man sama yaakaar am na ñu bëri yoo xam ne jotuñu seen carte jotuñu seen carte d'identité. lépp nag di am. loolu la jàlle depuis ci wàllu carte ci wàllu fichier bi ci wàllu carte électorale bi lu bëri tey jii ñu ngi koy déroulé tey élection bu ñëw mu mhm. maanaam rapport bu may wax seen taxawaay yéen mhm. en tant mhm. parce que politique nag la gars ko pour yàlla dañ ko def pour seen bakkan waaw xam nga waaw ñi gëm loolu ñun gëm nañ leneen hmm. xam nga am na loo xam ne dama koy xam ne du ma ko wax. daanaka fu ma ci jéem rek ci wax. xam nga man li ñu wax ak yow sax Moustapha Cissé dafa yuuxu rek waaye Moustapha Cissé dafa yuuxu mais man naroon naa yuuxu. waaw man am naa problème. man genre problème waaw man dama toog bis bi élection yi jub parce que am na moo xam ne élection yi dafa jub sama téléphone ñu woo ma ne ma téléphone bi piis bi nga yor moomu loo ko. Hmm. waaw ma ne leen mais piis bi ma jafe caaxaan la kooku woo ma ne ma piis bi nga yor moomu loo ko jël xaalis sax dugal sama biir portable lépp yaa ngi woote ci xaalis boo xam ne moom moomu ko ba ne ah kon li si sëriñ ñu ne ma da dem euh, Sonatel ma xëy dem Sonatel bi demee ma gis nit ñi xaw a kii ma dem dama dox tuuti génn rek am ku ma woo ne ma. Eh, fi nga doon est-ce que dem nga Sonatel ma ne ko dem naa mu ne ma demoo ma ne ko non dem naa ma foofu dafa bari dafa bari mën naa dem ba suba mën na ko suba na nga ah, ba ma dellu ma ñëw waa ji ne ma ah yow yow ma ko man kat dañ ma fi woo ne ma sama puce téléphone bii maa ngi ko yor depuis 2007 xam nga 2009 ñu ne a waaw jox ma sa carte d'identité ma jox ko mu xool xool ci machine ne ma ah. publier sa tur ci nekk waaye fii kii de bu fa numéro société la nekk. wax dama yor société ah, ma ne ko man yor ba société. ah en ko koy bàyyi ma ne ko non bàyyi man dem ci yoon. ma ah ma ko ma ne ko nañ dem ci yoon. coow li xaw a bari noonu c'est dans sens ma. mu ñëw mu ma toogal ma toog mu ne ma waaw euh, ah machine yi comme ni ñu gis si machine yi ça veut daal mooy piis bi mën na leen nañ dem ci yoon. Euh, ñu ne ma léegi garaawul demal ma ne ko non man sax sama internet nañ ko dagg ñu ne ma non léegi delloo nañ internet ma xool ñu delloo ma sama internet ma dem ma dem toog ñetti fan rek ñu sàcc sama portable ma jël si Sonatel di wut jël si say puce ñëw puce mënatoo ci jot ma ne ah, mais lu tax ñu ne ma non da ngay bind euh, euh, bindoon lettre daal mais puce bi yow mënatoo si jot ñu gis si machine yi. ma ne ko ah mu ma si jot ma ne ko non mais waaw ah, sama piste téléphone la. ah chef d'agence bi ne ma man de ma ne ko ah mu ne ma ñun dañuy liggéey fi ñu bindoon lettre ñu envoyé ko ñu ñu gën a kawe ñu xool ma génn jox ko ku ñu wax Mohamed mu ngi foofu. Mohamed ne ma man du ma bind lettre bi. mais mën naa la defal ay kii nga génn ma génn bon dem ci foofu ci biti ñu bindal ma lettre ma envoyé ko jox leen ko. ma toog ñetti fan ñu woo ma wala li ñu jot daal mooy si piste boobu mënoo sa si jot piste bi nag. man ci laay liggéey man couturier la. waaw mais nag euh, ci laa daan jo Idrissa bu ma ko mënul jot ci laa ko daan woo Idrissa bu gis bu boo keneen naa ko ci beneen numéro du ko jël. dëgg la dégg am na jamono maa nga fay dem man xam naa ne amoon diggante sama diggante ak moom lu mu xaw a ne bu ma sànni ñëw bu may dugg si kër gi daf maa moytu karo yi kaay toog. Mm-hmm. su ma demee ba bu ma ñëwee yenn saa yi mu xaw ma tëju du ma ko gis. ndax xayoon na ma. li daan décision rek ci Macky Sall. Mhm. waaye loolu man xam naa la tax. Mhm. man xam naa lu tax parce que bon am na lu may waxtaan ak moom. waaw am di waxtaan ak moom. Mhm. te am na audio yu nekk ci biir sama portable yoo xam ni moom xaw ma ndax ngir na wax naa ci. ñii élection yi demee yii dama ko waxoon. ñi nga xam ne nii loolu sax wax naa ko fii yi waxtaan naa ci fii. wax naa ci lu bëri ak moom. mais diggante bi xëy na euh, tax na ñu jël suma piis donc piis bi ci lay liggéey. kon daa am yoo xamoon yun bañ nga wax ko. waaw ah, il fallait que ñu récupérer piis bi ça. parce que xëy na. bëgg woon xëy na comme moom gis nañ leen peut-être li ma jàpp. gis xëy na xam nga mën naa ñëw këram duma ko gis. ñëwaat fa ñaari yoon du ma ko gis. ba boo xam ne day pend laa mujj waxtaanal. génn dem. bon mën naa am ñoom ñuy gis ne comme mënatu ma gis Idriss Seck dañ fexe nangu biisam ba du ko a jot loolu dama ko xalaat. lu ko ko lu ko mënul mm-hmm. xam nga télévision laa toog di wax. waaw li sax bëgguma ci woon ndax yàgg na waxuma ci dara am na sama xarit yoo xam ne dañ ma ne porter plainte que du yoon. xam kii bi yar sama piis yenn saa yi dañ koy woo sama benn xarit keroog woo na ko ne ko dama woo Serigne Diong mu ne ko Serigne Diong boobu lan lay liggéey. boo ko ne ko ah Serigne Ndongo de man xaw ma lan lay liggéey. am na sama xarit yeneen yu bëri ñoo xam dañ ma wax ne moom est-ce que mënoo porter plainte ñu jël sa puce bi xam nga waaw. ma ne ko non comme problème bi demee na nii ah naa toog bàyyi yàlla yàlla naa at lépp. xam nga loolu mosuma ci wax sax. xam nga mos naa dem ci benn avocat sax boo xoolee lu mu yàgg mën a daal jarul naa bàyyi. xam nga waaw. d' accord euh, sëriñ euh, loolu moom vraiment mbir la moo xam ni euh, doy na waar ba yegg ci loolu parce que tamit yéena la yor sa piis depuis deux mille sept deux mille neuf ñu xëy xëy ne la moomoo ko loolu vraiment lu kéemaane la voilà mais sëriñ sànq bi ngay démarré da nga expliqué ne réew mi ñi war a wax ñoo waxut te fi mu toll nii ki nga xam ne mooy Idriss Seck loolu lañ koy reproché Sénégal gi yëpp day reproché ne lu tax génnul wax te yow nga nekk koo xamante ni kii ci jegeñaale ñoom ngeen bokk parti léegi nan nga mën a firee lool. waaw xam nga Idrissa loolu jàpp naa la wax na. micro bi waaw. parce que xam nga Idrissa doyoon na ku ne wéy di nga ne wéy di nga ne. bu yaay bu yaay kon nag léegi nit ñi foog naa fu ñu toll léegi. waaw bu yaay ñu ngi ci bu yaay kay. kon kay loolu loolu loolu wax ci xam nga. man nag li ma jàpp mooy. Abdoulaye Wade waxoon na benn wax bu am solo. mu bëri nag doon ci bàyyi xel. Abdoulaye Wade nee na nguuru africain yi. faaw gis nga fi war a wote ay loi yu bees. yóbbu ko assemblée nationale. su ko defee bépp président boo xam ne. yàlla dogal wàccati nga. dañ la war yóbbu ci dëkk ba nga dëkk. nga am fa kër am fa ay tool. su ko defee. kenn du la topp nag yàgg sa jabar waaye ñeneen ñi nga xam ne nag ñoom dañoo nekk ci sa biir parce que ñoom defuñu dara de ñoom président yi fañ toog leen ci suuf ñoom ñooy def affaire yëpp. waaw ñooñu nag kenn ku ci nekk ñu topp la seet la nga def ak loo deful. mais ñoom président yeeg seen jabar ñu yor bu ma gisaan dama Fatick ëllëg def fa toolam def fa këram boo xam ne dina du dem France wala Europe fu ko neex Amérique. waaw bis bu ñëwee Sénégal amul droit toog Sénégal nga dem ci foofa Fatick fa ku koy seet seet ko fa. su ko defee Fatick dana jóg Abdou Diouf bu ñëwee ñu ne ko demal Louga. Mhm. dafa tabax fa kër def fa tool. dina suqali loolu mettre waat loolu. Mhm. xam nga. boo liggéey ku fi jógee ñu def la noonu su ko defee loolu dana suqali wax yooyu. waaw daal war nañ ko def parce que tam bu ñu bàyyee paysans yi ku fi jógee rek dem France jël alal yu Senghor Normandie la nekkoon yóbbu fa alal yu réew bu fu fu mujjee alal ba nax say mhm. wante ngi nii moom itam gis nga ko ah bu ñu ñëwee Sénégal ba léegi moom it gis nga ko ci génn rek mën nga dem loolu itam foo waxtaan ci waaw xam nga parce que euh, lu toll muy kilifa président yàlla moo koy def nit su la ko yàlla defee nag da war a am yërmande mais boo jàppee ne am na ñoo xam ne dañuy mere seen peuple ne ak ah, peuple bi wóoteelu ma maa def samay pexe ba toog fekk déedéet pexe yi def nga ko mais yàlla moo ci ànd dama soxla sa peuple rek nga yërëm leen. Mhm. xool ni nga xam ne boo ko defee. Mhm. parce que man li ma jàpp ci yow président bi ñaan dafa yow mooy nga fexe ba sa réew dugg nga dugg seen xol. mu mel ni Paul Kagame am yërmande. Mhm. xam ne Sénégal du France. ñii ñuy jëlee ci mbedd mi. dëgg la mbedd mi war nañ mën a boo raxasee ñëpp ci mbedd mi non non non dëkk bi de li ñu naan mag yi dëkk bi dama mag yi non non non. na ma ko war. loolu mooy problème bi. li mooy problème bi mooy bu fekkee ne benn waay dafa nekk fii. ñu di jaay fii ci tali bi wala mécanicien yi toog fële mais am na femme bu fa ñëw di leen toggal añ di fa jaay. waaw femme boobu dem na ci benn boutique jënd fa ceeb jënd fa diwlin am mhm. déet. mais ñooñu boo leen fa jëlee bale nga ñooñu bale waale nga femme boobu bale nga boutique ba mu doon jënd ceeb ak diwlin. Mhm. bale nga jaay ko pour dëkk ba loolu moo taxaw ñu dëkk bi. waaw moo tax dëkk bi kenn waxatul su ko defee ñooñu fan ñëwee woon sax dootu am mhm. location bu ñu mën a fay. su ko defee ñooñu mag yi mag yi mag yi mais li ñu war a def mooy am yërmande si peuple bi xam ne yàlla rek moo fi ne. sëñ bi euh, euh, damay wax ni que euh, ci mbirum kilifa ci li nga xam ne rek moom moo di sa Seck dama dégg ci sa kàddu nga daal ni bu ñu kilifa kon réew mi dina tàkk ma yaakaar ni tamit aussi kilifa googu est-ce que du mu sëñ Moussa Nawel moo nekk ci ginnaaw ki xam ne rek moom moo moo ko daan ko defal nii defal nii defal xam nga loolu man duma wax loo xam ni dëgg-dëgg loolu moom <laughs> aw ci xam-xam waaye nag jàpp naa ne sëñ Moussa. lu baax rek lay digal Idrissa te loolu moo baax. parce que gis nga soo jëmee ne yàlla joxe nguur. ci Sall kenn xalaatu loolu ni doo mi. ba ci Abdou Diouf. yàlla su lay jox Idrissa trois mois après élection yi kenn xalaatu ne Idi mooy dem deuxième tour. am dégg lu ma indi deuxième tour yàlla yàlla ñun am na luñ ci xam xam nga waaw xam nga am na luñ ci xam xam nga yeneen saa yi. dina am hmm, yow loo war a def fekk am na loo wut mais li ngeen wut am na loo war a def pour jot loolu mais loolu boo ko deful eh, loolu mën naa tax loolu doo ci jot fekk daa jotagul moo tax doo ko gën pour def ko foofu nag wax la rek ju wax xam nga waaw ab kilifa diine la ji. waaw mais jigul nitu politique. <laughs> waaw moo tax loolu. waaw ah, xam nga wàdd moom Ablaye moom xam moom. Hmm. wàdd moom. koo ci barma la. Hmm. xam nga hmm, wàdd ni ma sa misaale. xam nga kooc. waaw nga dégg turu kooc xam ngeen ko. di yëngu dégg ci barma waaw. koo ci dafa mas a toog ba mu yàgg. mu xool doom ji. Mhm. nga comme na ko ko remplacer mu woo doom ji ne ko. Mhm. dama wutal ma mhm. ji génn dem fekk benn mbooloo boo xam ne dafa fekk benn waay boo xam ne ñëpp ngi toog mu tëdd di nelaw di xaram. mu yee ko ne ko wuyul sama papa. te daal fekk beneen mbooloo moo xam dafa fekk ne wax rek mu taxaw ne li ñuy wax daal weddi lépp te du fa teg dara mu ne ko wuyul sama papa. daal di retourné ñëw ci papa ji papa ji ne ko yow li ma doon indi nga ko mu ne ko waaw papa ji xool gis na ñaar la indi te ñett la ko waxoon. Mm-hmm. waaye mu ne naa dal laaj ko. Mm-hmm. laaj na ko waaw. kii nga indi loo ko indi mu ne ko kii di dama ko fekk ci mbooloo lu ñu wax mu weddi ko du fekk dara mu ne ko kii dof la. Mm-hmm. wax nga dëgg yow dof la. mu ko kii nag mu ne ko fekk ci mbooloo muy nelaw fu mu lañuy dañuy defaree àdduna moo tax. ñu ko ci waxam dafa am solo. moo tax yii ñuy def nii di waxtaan. c'est important nit ñi waruñu toog seen kër rek mais sama yoon nekku ci. xam nga waaw loolu nit ñi warul nekk nit ñi war nañu jóg wax ñi war a wax war nañu wax parce que réew mi nag Sénégal man gën naa ne euh, réew moo xam ne Sëriñ Tuubaa mi ngi fi. Alaaji Maalik wàcc fi euh, euh, Seydi naa Limaamu wàcc fi et ak Cheikh Omar ma nga xam ne mooy seen mag. réew moom a tappale mënu ko war koo fi defit yërëm naa la ëllëg waaw bu ma la yërëm ëllëg mooy dañuy fexe wëlbati réew teg ko ci yoon. mais a kocc waaw ba mu ko nee ñaari doom <laughs> ko nee kii ab dof la mu wax nga dëgg kii ab dof la mm-hmm. parce que ku fekk mbooloo ñu nelaw la ñu war a àdduna mm. nga wax ko ab dof la mu ko waaw ñetteel ba nag pàppal damay yaakaar ne ñetteel bi ndax du yow ñi nga xam ne boo gis defe ne yàgg na yow. <laughs> waaw boo yaakaar ne kon yow est-ce que yow ñetteel. mais mais mais sëñ wadd la. ku yeewu la. man waxam sax bu gën a ci woon sori ndax man moom laa njëkk a ànd. mais kon yar na doom ji. Ah, waaw la. moom laa a la njëkk a mais diggante Wade euh, Macky Sall. Mhm. ah ak euh, ñu bari ñu ngi naan ñoom ñaar. dañuy feew ci kaw mais ci suuf am na lu ñuy nas Cheikh Yérim Seck génn moom dugal loo xam ne kenn sóoru ko woon mooy sa Seck moom mooy xam nga sànq da wax ci seen jël benn wax benn kàddu boo xam dafa attiré sama attention ñu bëri ñu ngi weddi Cheikh Yérim mais yow da nga ne daf na tekk waxul ci élection yi ba am na lu muy waajal daf mel ne boo ne tekk tekk wala yoon est que nekkul nii tamit ah tey jii politique ñoom ñëpp li Seydou Lamine Niass doon wax naan ay taalibe Macky Avel lan est ce que sëpp mooy Idriss Seck ak am luy nas pour que Idriss Seck mën ko wutu comme ko Cheikh Yérim waxee. est-ce que xam nga xam nga seex Yérim mën na am xam nga Cheikh sax nit waaye euh, yenn saa yi day wax ba wax lu mu xamul. nga am loo xam ne amul sens. Cheikh Yérim nga amul sens. Idriss Seck. koo xam ne kii yow yéen a doon xëccoo réew mi. nga jël ko tey Macky Sall mi ngi jeexal war a dem. di sa bokk ci ñi nga xam ne ñoo war a ëpp yaakaar ci réew mi. waaye lu euh, euh, na am wax nag man d'accord naa ci moom. Hmm. parce boo déggee mu ne Macky Sall yéene na Abdoulaye Daouda Diallo yéene na diw yéene na diw. Macky mën na loolu mën na nekk. parce que a Daouda Diallo. ak Moustapha Cissé Lo. ñaar ñooñu Macky Sall. lu ñu war a fonk la ñu Macky Sall fonk la. loolu mooy wax man maa man xam naa ko. wax naa ko yàgg xam nga parce que lu tax mooy. Moustapha Cissé Lo. bu Macky Sall nee juróomi at Moustapha Cissé Lo rek taxaw di xeex ne Macky Sall day def sept ans. bu Macky Sall defee sept ans na ko fay yóbbu ko fële mu tudd CEDEAO waa xaw ma mais c'était normal. xam nga c'est normal pour Cissé bëgg Macky Sall xam nga waaw ku ko bëgg la. te it waxkatu dëgg la. sa président daal bi boo ko doonee. fexeel ba ñu lay wax dëgg. te nekk say métti démb. di leen di teggal ndax gis nga bëri na ñoo xam ne ñoo toppoon Abdou Diouf jóge fa ñoo topp Abdoulaye Wade ñu ngi ci gannaaw Macky Sall. dama na ñoo xam ne ñoo Macky dafa yeewu Macky dafa yeewu mais. Eh, ñooñu ay buñ ko sama mag daf ma mas a ñetti wax. Mhm. mu ne ma borom xel mu gudd. Mhm. te ñaaw saytaane pur la. Mhm. borom mu gàtt te ñaaw ab dof la. ñaaw <laughs> xel mu gàtt te rafet wàll yu la. rafet wàll borom xel bu gudd te rafet. alors euh, loolu nag dama ci yem foofu rek ndax xëy na su ma ko waxee de dafa am yeneen ñu ciy déggee leneen. <laughs> waaw waaye mhm. waaw waaw waaw. su ko defee président. Mhm. nay fexe ba. Mhm. Euh, fii mu jëm. foofu mën naa fi egg tuuti. maanaam damay dégg naa ci affaire mandat bi ñu ne Macky Sall Euh, ci ay troisième mandat ak ay deuxième mandat ak nangam nangam man foofu am naa fa xalaat xam na nag Sénégal moom dañu jàpp ne bu ñu waxee rek ñu ne voilà loi bi ñu tudd sax constitution dafa xaw di loolu ci lu leer la lu leer la. sëriñ nga tëjaale ñaari ma ñaari mandat lañu wax ne soo ko defee rek da ngaa a dem. waaw mu def ñetti mandat mhm. su Macky Sall demee ñetti mandaa bu ko neexee yëf juróomi mandat daa ah, wax mu tax boo ñëwoon benn def na benn sept ans. Mhm. duggoo ci benn cinq ans. bu fekkee ne dañ ne léegi day defaat beneen cinq mu dem ba ci mandat bee di mu daal di def référendum woote na day wàññi mandat luñ ci man ñu ko def ko quatre ans boo léegi du def la beneen bu ñëwatee mu ne ñu yóbbuwaat référendum dama def ko trois ans que yéen dégg bu loolu moo lay xamal ne la yooyu moom ay waxu tappale rek la. mandat moom bu ko parce que gëmuñu benn ñu nekk mooy xam conseil constitutionnel feneen kenn ku taxaw ci réew mi bu wëlbati wax jooju. mais mën nañoo ñu yaawon rek yi dañu fay bari de yaawon rek. Hmm? waaw waaw parce que waaw waaw naa ne nag ci ma jàpp. Hmm. Macky dama am wax boo xam ne ko wax mooy leen lu bari nga ma waaw moo wax ko. moom su ma waxee. ñu bëri dootuñu liggéey su ma nee lii ñoo defe nii non loolu c'était dëgg la tey it Macky dëgg-dëgg wax na lu leer de man damaa jàpp ne xam nga rek euh, Olof Ndiaye bu déglu ku seen lu mu boo séenoo xam nga ko Olof sama waaw loolu la waaye li mu wax jàpp naa leen leer Serigne ñu lay gërëm bu baax a baax Serigne Diango bi membre parti mu jege Idrissa Seck tey ju doonoon suñu gan ñu koy jaajëfal bu baax a baax di la bàyyi rek nga tàggoo pour ñu wéyal waxtaan bi. léegi euh, leen sant di leen gërëm. jërëjëf micro bi. Ah, di leen sant ñaan yàlla jëf jàmm ci réew mi. amiin euh, di ñaan yàlla Macky mi fi yàlla teg. Mhm. mu gën a yërëm. Mhm. bi. Mhm. xam ne du xam-xamam moo tax wala juddoom wala leen. yàlla na soob. mu jox ko. yàlla nag dana bu ma la joxee dama laa jox ko ngay yërëmaate. waaw loolu mu góorgóorlu ci xool ne. amul ay yoon. bari na ñu koy waxal ci télé yi di wax ñooñu ay yàqkat la rek lañ. waaw waaw ba moytu ñooñu. loolu gënuñu dara. merci Serigne ñu koy jaajëfal bu baax a baax Serigne Diango di membre parti Rewmi Sukkar. Uh-huh. di ko wax rek mu nuyu waa Corniche Guédiawaye di jaale waale waa Corniche soxna. Aziz Ndiaye di Fatou. parce que ñun ñëpp foofu lañ juddoo. ñu leen di masawu bu baax a baax si quoi. Euh, euh, euh, jërëjëf Omar. jërëjëf jërëjëf Omar bu ñu xaataat jërëjëf ki nga xam ne rek moo di sa invité. yaakaar naa ne waxtaan wi rafet na lool macha allah ñu ñu ngi fëddal suñu kóolóore ak moom bu bare bare donc ñuy dem fi nga xam ne rek moom moo dirigé daal di ànd ak madame Cissé ci seen rubrique top 5 URG DG Gabriel Pereira jërëjëf ki nga xam ne rek moom moo di Abdoulaye Top euh, ma nuyuwaat ko ko nga xam ne rek moom moo di madame Cissé Khadijatou madame madame Cissé nuyu naa la. waaw ah, maa ngi lay fayaat si mbaa chers téléspectateurs voilà tey nag euh, Top 5 dafa delluwaat comme comme au début parce que aussi dañ suñu à chaque fois dañu leen faral di indi ay invités mais aussi dañu bëgg a rëbbi bu wuyu mooy. Euh, dès le début dañu ko ma tàmbali woon ak cinq say yi nga xamante ni moom la ñuy voté à partir de notre chaîne YouTube TVSA ci noonu voté woon nañu ba nga xamante ni euh, semaine bee passé wax nañu série bi nga xamante ni moom moo nekk série de l'année ñu ne ma woon Mœurs léegi nag tàmbaliwaat nañu benn vote bi nga xamante ni également dañ koy voté toujours à travers notre chaîne YouTube TVSA vote bi nag choisiraat nañu également yeneen cinq séries yi nga xamante ni moom la Sénégalais yi xool bi nga xamante ni moom moo leen ci neex ñu tànn ko votel ko ci cinq séries yooyu noonu euh, dañ ciy am parce que duñu dem seetaan extrait bi d'abord. ak ñu la ci voilà ñu dem au niveau de la régie seetaan euh, kii bi te ñëwaat. mbokk yi top 5 bangog ci Walf TV dooratina ay théâtre yu neex yu amul fenn juróomi théâtre lañ leen dégtal kenn ku nekk tànn sa bu neex ci juróomi théâtre yi le yaay tànn xool ba méngoog jamono bu la cay daaneel ci juróom yooyu le bokk na ca Pod et Marichou Yandé Idole VIP Sañse Adja fin d'année juróom yi le